mbokk yi ñaari xale yaa ngi ci diggi géew doomu jàmm gën a góose doomu jàmm gën moo nu woon ginnaaw góose la nu jaakaar lool bal teng si ba baaba nga ko doomu jàmm gën a góose doomu woon ginnaaw bi laaj na góose laaj na doomu jàmm gën coup d'envoi ba dem na doomu jàmm gën moo ñu woon ginnaaw gauche jaakaar lool eh dañu xeex doomu jàmm gën a gauche mbot na ko laay loola la vite fait bien fait tege de bàyyil jàmm daan na ko doomu jàmm gën daan na ko eh taxaw leen nee na na ko doomu jàmm gën daan na ko waa lii gaaw na di eh eh na ko laay lay la laa doomu jàmm gën def na affaire jooni jooni la tegal vite fait la ko daan na ko oh, doomu jàmm gën doomu jàmm gën daan na ko waay oh combat gaaw. combat jooni jooni. lii suuf la ñu ruuboo mu déclenché mbot. lii mooy vite fait. c'est bien fait. bien doomu jàmm gën daan na ko. Eh. Ousseyn tey mbiru jàmm gën yi